daa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul Jawlax Al Misbah Karafal maa ngi leen di fay yéen presse teew yëpp maa ngi fay bu baax a baax. tey ñu ñëw fekk la fii Fass terrain Santhie mbooloo mi la uyu si yëpp ci xale comme yow nga bëri woon daaw ñàkk combat tey nga jëmaat si combat boo xam ne Bébé Bismi ngay bëreel aada fi mu nekk nii fan la toll ak ban yëg-yëg la am bu gisee mbooloo mi ko wër nii. waaw maa ngi sant ñu fi teew yëpp sant sama mbokku mbër su mel ne anti maa ngi koy bëggee bu baax a bi si fa à deux di sant ñu fi yëpp samay supporter am ma seen fay lii rek yombul waaw ñu déplacé wu ñëw taxaw fii di ma xaar depuis 4 heures ba léegi maa ngi bëggee di leen sant bu baax a baax a baax mhm. dama laa laaj léegi dama da nga jógoon si combat daaw yàgg Onde nga ñàkk tey ñu joxale beneen combat yàgg ki nga xam ne mooy Bébé Bismi te kera ma dégg ko mu wax la ne yow booyam nga yaa ngi dégg maanaam bés ba day ñëw jàngal la tegaat joxaat la beneen le leçon bu bokkul ak yi nga daan am. waaw làmb la quoi ndax damaa jóge si combat ñëpp gis combat lu mu demee xam na nañu xale laa te yëfu xale laa indi juum du jëmaat si làmb waaye ne man xale laa tamit dama may yaraat boo ko xale du juum ñaari yoon. Hmm. xale du juumee bu nga ko dóoree du dem du demee dana toog xam na fu muy jëmaat bu baax a baax a baax a baa xale du juum ñaari yoon. waaw wax ko loolu. waaw Ada léegi laa jóge si bébé bis bi nee na da nga ko menacé menacé yu métti te nee na ndam li moom moo koy jël lan nga koy wax yow. ndam li yàllaa ko yor ñun ñoo ngi liggéey di def lépp lu ñu war di sabablu di entraîner tamit di ñaan yàlla onze yàlla yàlla yàlla nañu yàlla may ndam waaw si kattanu yàlla. nee na instant yii toll nii lamb da koo jaral bi lamb la la jaral. am da koo jaral ñun dañoo romb jaral am na da koo jaral la wax ñu dañoo romb jaral na ko jaral la rek ñu toog suñu kër duñu entraîner duñu def dara dañoo romb jaral moo tax ñuy def lii di ñëfee. ñëwal ñëwal jërëjëf Ada man daa euh, nga bëre ki nga xamante ne mooy on le fu mu lay daan nga retourné jël bébé bis bi bébé bis bi jóge si combat bu métti mooy nga dem moom ak Cheikh Super Jamono ñëpp ci seen combat dama fa demee lan moo waral nga jël bébé bis bi Ada Fass nga wax wax yeneen mbër Ada Fass nga wax waaw mook Ada Fass la wax naa yaa ngi soog a am combat mosoo am combat mel ne Ada Fass si làmb xale laa te gëm naa sama bopp du ma am du ma reculer si làmb ñaan yàlla yàlla ma yàlla mooy ndam. Ada bi mooy sa ñaari deuxième grand combat boo xam ne yaa ngi koy bëree stade Diop Iba Mar Diop yéen ñaar ñëpp ñaari pied droit nga mais yow nee nga ñaari tànk yëpp nga mënee est-ce que séntu nañu xeex bu sax yaa ngi moom benn bis bi. déggoo ma làmb ji lu mu laaj rek ñu indi ko ndax da la 11 nekkul bis bu tuuti ah, bi yëpp ñoo ngi xaar moom ne. droite lay bëree man ñaari pied wa bëree waaw làmb la rek ndaxte làmb de dafa war a neex ndaxte xale la may xale du ñëwee bëre ma ñëw bëre làmb ju neex waaw. mais nag wax nan waxam na rek ay wax yomb na mun naa taxaw fa wax lu ma neex si géew bi mel dama koy ne bis baa na dëggal boppam loolu rek laa koy wax leneen. mais lan nga ko def loo ko def. non dafa ma ko dara. barki borom Touba dafa ma ko dara. mais sa dugub bi lan nga koy rectifier. non jom bi lu mu mënoon ñàkkale rek làmb moo bindee noonu kuy bëree daanu te dañ ñaan yàlla mu yem fa quoi si kattanu yàlla. ada ada dañuy xaar yow minutes yi da ñuy tënkal minute tey wala doo ñu tënkal minute ni nga daan def ne ko temps bi dama lay daan wala temps bi du ma la daan. non dama wax si minute naate moom. dafa ne du léetoo day yab supporteram moom loolu la wax du taxee du day yab ay supporteram amul problème moom mu ne du léetoo day yab ay supporteram ab day bëri bu ñëw du ñëwee laa mu jeex si kàttanu yàlla barki borom Tuuba bu ñëwee da ngay arrière wala da dox ci kawam def li ngay def Ada Fass du reculer noxon genn la sax mu koy songu barki borom Tuuba nee na bu la tee lamb ji jeex loolu la wax mu waxam la entraînement am la xam xamul lu mu liggéey borom Tuuba benn laaj tey bu ñu la xoolee xool ko ngeen di bëre samedi ci côté mobilisation parce que nañ sa mbooloo génn est-ce que xaar nañu samedi mbooloo mii nii fees Iba Mar Diop pour Ada Fass. dëgg ma ne ma seen fay ñu Ada Fass du wootee rek dañuy bàyyi seen yitte yëpp barki Seydina Mohamed di wax nañ gën a jàpp xam na ne làmb moo bindee noonu quoi ku bëree daanu te yàlla nañ defet bi yem foofu. di la 11 si kattanu suñu borom midi ñoo ngi esaat. barki borom Touba. midi ah midi ñoo ngi stade. yàgg ku dàq bëre. maanaam bébé bis bi. yàgg bébé bis bi ku dàq bëre. bébé bis bi waaw moom ma ne moom mu dàq bëre moom mu dàq xeex. yow da ngaa nangu loolu. a ah, moom su lu ma jàpp. te abdoulaye ne prib dañu xam ku dàq bëre ku dàq xeex. da dëggal lu wax rek. parce que ma laaj la loolu parce que gars ne doomu Fass nga te Fass bëre dafay yàgg foo xam ne bëre yàgg na fa moo tax ma laaj la ku dàq bëre da nangu ne moo la dàq bëre wala saraan ngeen sama combat sama combat musul déré cinq minutes man seetaan naa la ba Joal Fadiouth yaa ngi dégg ci nit simple ngay bëree mais dama bëgg nga wax ak moom yéen ñaar ku dàq bëre aada dama ne sama combat musul déré cinq minutes duma masindil xaw ma yëkkati loxo ah. abi ne prib jeex na ah, ah. xaw ma te teewaayu double moteur waaw mu jóge bëre bés lan lay def ci yow sàng maa ngay wax double sama grand la maa ngi bég si moom bu baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla may combat mu am ndam si combat bu kontaan naa bu baax a baax ba te waayam fii nii waaw. gars yi mais nan looy tàggoo. waaw di sant rek di sant ndax de lii yombul organiser lii na ne ay ndaw samay morom ak samay rakk ñoo ko organiser samay grand barki sëñ Saalum du ma nag da leen sant ñoom ñëpp di sant tamit ñu may jàppale su sama papa Adama Soumaré barki sañ Saalum dama ne mën naa ne lii moom la di sant. ministre Amadou kii ministre Cheikh Ba maa ngi koy sant bu baax baax a baax. di sant waaw ah, suñu président Pape Diop kii sax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant di sant douzième Ndiago di sant Assane Dussé suñu zone suñu maa ngi koy sant di gërëm. di sant ñëpp ñu may jàpp di sant sama dam day Mouha Awa Fayam combat laa mujj bu mu tëjee ba léegi moom may entraîné di sant sama waa écurie tamit surtout sama waa écurie à Fass Perno maa ngi sant waaw maa ngi ne sa kaw sa kanam rek yàlla bu baax la os yàlla yàlla mooy ndam. loo yóbbante sa adversaire loo ko yóbbal. di leen sant yéen tamit. waaw yéen di leen sant quoi ndaxte yéen yaa ngi tax lamb di dox dafa ni yéen lamb ko dégg di leen sant bu baax di leen kontaan ci yow sama adversaire na dëgg lu rek si kattanu yàlla xale la mooy xale lamb yi yàlla neex ak jàmm salaam